MMA champion du monde 2019 en état contre l'Américain Carl Culpepper le 28 septembre. Suivez en pay per de Equivox TV, bonsoir et bienvenue. ñu ngeeg l'un des phénomènes ou bien le phénomène de la lutte sénégalaise Siteu mu ñibbi si lu yàggul dara ci réew mi di waajal événement bu mag le 28 septembre foofu ca Californie. alors di États-Unis waaye balaa yàgg dara mu ngi waajal li nga xamante ne moom mooy euh, euh, open press bu am am solo foofu ci stade euh, Jacques Mbao loolu yëpp la ñu bëgg a waxtaanee li nga xamante ne bëgg na cee jëm li nga xamante ne moom lay liggéey foofu ci États-Unis ak li nga xamante ne ay projet am la ak yi nga xamante ne sax yéene na ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokku sénégalais yi ak sportif yi ak ñëpp alors ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk mbokk yi ñu yaatal salaamaaleykum champion. salaam. maa ngi lay siyaare di wax ne jërëjëfe borom Touba comme ni ma koy waxee chaque jour jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di lay nuyu. voilà alors bi nga ñibbisee ci réew mi euh, yàggul dara alors noo gisee euh, Sénégal namoon nga ko wala. waaw fii moom ku fi xam namu ko ku fi dëggul sax boo fi xamee li nga koy nam waaw ndax dëgg la boo xamante ne eh, dëgg triangle la. waaw kon namoon nañ famille bi namu tamit suñu mbokk yi làmb ji yooyu yëpp namu nañ ko. à distance yaa ngi doon xool li xew ci Sénégal yaa ngi doon xool làmb ji. waaw maa ngi doon xool bu baax maa ngi doon xool maa ngi xam li xew lépp lu bari maa ngi xool te booba léegi tamit lu ma mën maa ngi koy def lépp lu ma mën rek maa ngi jéem di def yee ngir sama réew lépp lu ma mën maa ngi jéem ngir ñi nga xamante ne tey. ñoo nekk ci affaire bi di yëngatu. di yëngatu si làmb. yéen di leen suivre ñoo ngi def ay yu bari. waa mais ñaan nañ yàlla mu gën a dem ci kanam. incha allah noonu lay demee ñu gis jékki-jékki gis la nga dugg ci MMA. nga nekk benn phénomène ci biiru États-Unis ñëw ak tuus bi xam nga yëngal yëngal ba mu yëngu mais yàlla may la ci ndam mu nekk fierté sénégalais yëpp lan moo la dugal ci MMA. MMA nag li ci dugal sama benn bro ñu naan legacy man moom ma gis yee mu nekk sama xarit nekk sama waay ñu xamante yee bi ñu xamante ci la ma proposé affaire yi moom dafa am moom dafa bëgg affaire bi naturel da koy def da koy pratiquer yee mais du xeex affaire yooyu léegi si noonu te moom course bi koy jàngal champion du monde la cinq fois champion du monde muy taay yee ci noonu la defee contact yi ñu xamante mu wax pour ma ñëw Californie mu nekk projet boo xamante ne yee yàgg nañ ci waxtaan man ak moom mun naa ne def na ay six mois sept mois si noonu ma gëm rek dem bi ma demee commencé pratiquer même pas quinze jours gars yi proposé mu combat. waaw yee ma ne man li may pratiquer man mënaguma ñii lu ñuy def. mais pourquoi ma yee li nekk ci man sañ-sañ bi nekk ci man fukk bi nekk ci man ak xeex bi ma doon xeex <laughs> temps booy di xeex te kenn du la fay. te yow nit du la gañee gëm-gëm boobu laa am. vision boobu laa am. mais mais bi nga demee foofu est-ce que ak différence bi nga xamante ne am na ci làmb est-ce que 15 euh, jours rek. nga ne garaawul damay jël combat voilà noo noo waajalee loolu. waa ni ma ko waajalee rek ndax fi mu ko njëkk a teg mooy MMA moo nekk sport boo xamante ne ku ci nekk li nga xamante ne moom nga gën a mën moom ngay gën a pratiquer. am na ñoo xam ne tànk moo nekk seen force. bu ñu xamee ne kii mënul tànk si tànk bi lañ lay exploité. profité la comprendre nga ñi mën. li nga xamante ne tey mooy boxe seen loxo la ñu yaakaar am na ñoo xam seen boxe seen loxo mooy seen force am na ñoo xamante ne bëre mooy seen force mooy dijjatu bi nekk si suuf genre bëre daal bëre rek laa ko mën a tuddee ndax lañoo gëm seen bopp tuddee ko dijjatu ba ñëpp di koy di koy xam la ma la di koy léegi ñun bëre ñu am ñun noonu lañ ko war a gëmee ba yóbbu ko extérieur jaay ko ndax bëre moo nekk loo xamante ne yooyu yëpp mun nga pratiquer di koy jàng ay muay thai la ma la ay boxe yooyu mun nga ko jàng ba mun ko mais bëre pour nga mun ko pour nga jàng ko ba mun ko 100 pour cent yombul du doole technique la ñi ko mën ñëpp dañ ko fooy ba ñu nekk xale yee gëm-gëm boobu laa ci am yee ma dem ñaan si yàlla rek yàlla may ma gis nga si noonu ñoom ñu gëm ci man kon man na laa war a def <laughs> damay gëm si man damay gëm si sama bopp te xam naa am na lu nekk ci man hmm. yee ci loolu laay sukkandiku jàpp ci loolu ba tey jii loolu mooy indi lépp waaw ñu gis ni euh, bi nga jógee ci loolu également yaa ngi waajal le 28 septembre combat bu mag Hmm? ñu ne euh, championnat du monde euh, ngay ngay compétir ba pare ngay compétir poids lourd est-ce que teelul. waaw no mënul teel nag ndax li tax may compétir pois lourd mooy sama taille ak sama poids moom ko may ndax man tamit ma li ma doon pratiquer fii yaa ngi dégg ñun instant bi ñun ay pro lañ jàppee suñu bopp làmb fii kon ñun ay pro loolu la ñuy exploiter yóbbu ko fële léegi bu ñu demee fële dañuy jàng li nga xamante ne moo nekk si ñoom. ñu sukkandiku loolu boole ko ak li ñu am génne ko yee loolu moo waral tey mënuma am lu may ragal si loolu ndax xam naa li ci nekk xam naa conséquence ci nekk ñu bari nañu naan damaa bëgg a bëri si làmb ji mais soo demee stade ba ñu dóor si coup yow di nga xam ne làmb yombul yaa ngi dégg <laughs> léeg nag noonu la mele loolu noonu la mel te boo xoolee ñun lu ñuy def dañuy def loo xamante ñun dañuy pratiquer di bëre di xeex sans gants mm-hmm. mais instant bi man benn gëm laa am mooy làmb ji mooy suñu lépp làmb mooy suñu puissance mooy suñu doole nañ si gën a jàpp mais nañ koy yóbbu extérieur di xeex ak tubaab bi tubaab bi di ñëw fii mm-hmm. su boobaa la ëpp valeur que ñu nekk ci biir fii entourage bu ndaw chaque jour ñu ñooy ñun suñu biir ñun ñun ñooy ñun ñooy defan di mayante xaalis mm-hmm. ñun suñu biir ñooy noonoo ñun suñu biir ñun ñooy defante loo xamante ne jaru ko pour man war nañu mën a def li nga xamante ne tey mooy xeexal suñu maam yi luñ doon def suñu maam bu njëkk ba képp koo xamee sportif nga nga nekk champion am taay bi mun ko pour man noonu nga war a xeexee sa pouvoir xeex ngir sa réew ndax boo amee ndam dañ naan africain bi mu am ndam li xamante ne moom mooy open press bi lan moo tax nga ñibbi si Sénégal pour war kaa def war a repartir fi nga xamante ne moom mooy Californie waaw open press bi nag li tax ma def ko mooy dama ci waxtaan ak ñëpp ñu ma ci war a waxtaanal mu nekk samay saafi maam foofu ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii ak samay xarit yee ma waxtaan seek ñoom waxtaan seeg sama benn gaan bu ñu naan ku mel ni jiili mu jox mu idée bi ndax booy mooy sama tambour major moom mu ne ma yow ñëwal bro yee sama ñooñu foofu am bëgg nañu xam man maay kan si noonu ma wax leen pro ñu mu intéressé wu leen léegi lan moo tax waruma mën a wone pouvoir bi nekk ci man yàlla dafa ma may ay nit te nit ñooñu ma may xeebu ma ko fii laa dëkk dama fier si fii laa dëkk doomu banlieue laa dama ci fier kon dama leen di wone nit pour ñu ubbi seen bët am gëm-gëm am vision nit li nga bëgg ak lépp loo mën a bëgg ci àdduna yee possible na pour nga am ko mais jugal nga uti ko yaa ngi dégg man message boobu laa am pour jeunes yi message boobu laa am pour képp koo xamante ne yow fekkee ne der bu ñuul moo tax ngay xeex yee sa gaynde da nga ko war a wone làmb baax na neex na mais bro cinq rounds yële yombul de waaw gën a mën naa wax alors mbokk téléspectateurs yi danañ ñëw le 8 stade Jacques Mbao fa la ñuy defee li nga xamante ne moom mooy open press bi lan la ñuy xaar ci open press bi ñi nga xamante ne dañuy ñëw seetaan si la namm la lool parce que ren ren bëri woo tamit waaw open press bi liñ si xaar mooy benn dinaa génne baax bu bees tàq comme ni ma doon def fii dina ko génnee tous bu bees tàq jili mbàkkee bi may tëgal moom ma ko permettre moom ngi lale te nee naa ko lool tëgg ma dinaa ko feej waaw benn deuxième bi mooy li may pare lu bees taaxam mooy dama bugg a def loo xamante ne amul limite kenn moomu ko bisu ñëpp la bisu mbër yëpp la mbër yëpp laa invité dama bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw ndax tey man ñoom ñooy sama famille ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy samay mbokk mbër te amul kenn ku ma ci bëreel lii damay dem xeexee koo xamante ne du suñu doomu réew léegi ñoom dama bëgg ñoom ñu ñëw soutenir ma invité naa leen ci open press bi ñoom ñëpp képp ku ma mën a ñaanal nga ñaanal ma képp koo xam ne sa temps may noonu la nga mën a ñëw États-Unis te nga am visa bi yow nga ñëw seetaan si ma damay am fier ànd ak yow damay am fier wane ne kii sama mbokk la. yee loolu daal maa ngi koy séntu si mbëri yee invité ñi ñu bàyyiwuma kenn bugguma lim kenn bugguma lim ki nekk ci kaw bàyyi ki suuf mais ñëpp. képp ku ñëw kontaan naa ku ñëwul kontaan naa damay xam ne jot bi mun na ko bañ a mate. alors yaa ngi may wax sànq ni sa mëbët tey mooy euh, mbër yi nga xamante ne ñu ngi Sénégal ah, ñu gën a bokk ci li nga xamante ne moom mooy MMA bi ak yeneen ah, discipline yi nga xamante ne ah, ñu ngi koy pratiquer à l'extérieur comme ça mu nekk loo xamante ne da ngay gis ay américains yu ñëw fii xam nga ngeen di def ay aller retour vision bi lan la. loolu vision boobu mun na am muy revanche Sénégal américain te gëm-gëm boobu dama ko am yaa ngi dégg te man. wax naa leen ko nee naa leen seen ceinture bu ma ko gañee boo leen ko soxlaa si dëkk bi ngeen ko te bu ñëwee si dëkk bi dama gëm ne ñun mbër yi fi nekk war nañ mën a am ay bunt yoo xam ne ñoom ñu xeex ak seen doomu réew ñu indi leen américains yi ñëw fii sénégalais yi génn yaa ngi dégg ñu def revanche Amérique contre Sénégal loolu mën na waaw mën na nekk mën na nekk ni ma la ko mën a jëlal benn mbër bu mag nga boole ko beneen américain jël benn site boole ko keneen loolu dëkk bi ñëppay génn ndax dañuy xam ne seen doom mooy jongante te yaa ngi dégg te gàcce mënul weesu ñun ñu dem uti wala ñoom ñu fekk ñu fii naan dañuy duma yaa ngi dégg ñun dañoo war a am gëm-gëm boobu teg suñu bët feneen yaa ngi dégg waxuma la sax ci àdduna li nga mën a am mais fi nga mën a yóbbu su turu réew rek loolu kese ndam la quoi kon nañu ubbi seen bët ñoom xool li leen di yóbbu paa li nga xamante ne neex na rek alors mbokku téléspectateurs yi ñu leen di fàttali vingt 28 moom moo war nekk combat bi nga xamante ne moom la Siteu di jongante foofu bu ko gañee Sénégal gépp a gañee ah moo tax muy sàkku wala ñun ñëpp ñuy booloo di ñaan yàlla def Siteu am ndam ndax bu amee ndam Sénégal gépp am ndam hmm. sunu drapeau moom moo ciy gën a yëgitiku alors combat bi nag pay per view la hmm. pay per view la. Siteu loolu noonu lay demee xam naa naa si ñëw sànq ak euh, le manager mais bëgg naa nga wax ak euh, fans yi ak sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi seetaan. waaw pay-per-view la mais dañoo bëgg pour ñëpp gën si taxaw gën si ñee si jàpp ndax tey ñoom dinañ xool ah mais ñii est-ce que focus nañ bëgg nañ si li xam nga si li ñuy def wala nii nii te man dama gëm ne wallahi mbëri bu ñu yokkee seen xam-xam billaahi ñëw mul ñële mbëri buñ ñu demee defar seen tànk yi defar seen loxo yi. wóor na alxuraan ñoo mën ñële non xam lu tax da ngay gis ñoo xamante ne doole la ñu am dañuy puusante kese dañ lay puus ba nga daanoo ñu toog sa kaw di lay dóor te ñu bëree yaa ngi dégg yow imaginer ki am technique fële da gis koo xamante ne ku tuuti la mais lay téye ci point foo xamante ne yow nit ñi dañuy yaakaar ne mais kii na la yembare wala fekk da la fa jàng dafa jàng fu mu la téye ba xam ko kon léegi dama bëgg mbëri man waxuma pour Zosu pour sama bopp de yee mbëri yëpp war nañ mën a dem ba supérieur cité si foofu gëm-gëm boobu laa am te loolu sama ndam lay doon yaa ngi dégg kon ñoom ñëpp loolu nañu war a def képp kuy def si benn affaire wala nga yëngatu si benn affaire da nga ñaan yàlla réussir soo xoolee ñaata mbër ñoo fi nekk ñaata licencié ñoo am laaj ñaa la ko. bari na ba ba pare mu am ñu année blanche. waaw léegi waa ñi année blanche sax mos a ñoo laal. mais am na ñoo xamee xamuñu li cinquante mille xamuñu nu mu mel. te bro boo leen gisee dañoo jàpp dañoo ceene nekk ay mbër ay boo yoo xam ne cinq heures la ñuy yeew di dem si géej gi di yegg si diini mais te mënuñu avancer mënuñu réussir yow sa carrière yëpp yow nga def ko si benn affaire te boo bëree benn yoon boo daanoo sax yow mun ngaa servi nit ñi ay ndami ndam mais benn yoon boo daanoo sax ñu fàtte la. yow maanaam yow léegi yow doo ubbi sa bët yéem xool loo xamee leneen loo xamee dina la jariñ. d'autant plus que d'autant plus que carrière u euh, mbër euh, sportif laa mën a wax rawatina bu mbër dafa gàtt. gàtt temps bu tuuti la fii dafa am baat bu mu mës a wax man dama leen di wax man succès moo suma jaaxal succès moo may topp mais man du ma ko topp te xam lu tax bu subaa day dëpp woon la ginnaaw te bu la wonee ginnaaw dangay dund li nga xam ne moo naturel si yow kon nit li am solo rek mooy taalibe mm-hmm. loolu lañuy ñuy wax slogan Baye Fall taalibe wàcce sa bopp def li nga war a def soxla woo xam li si mbedd bi li am solo mooy defal li nga war a def yaa ngi dégg yow soxla woo pour xam nit ñi lu ñuy dund yow li am solo mooy dundal li nga bëgg a dund ci lu baax yàlla jàppale la kon loolu rek laa am message boo xam ne dama koy lancé ñi nga xamante ne ñoo nekk samay raq ak samay morom ndax xam naa mag ñi moom ñoo ma ëpp ñoo ma ëpp xam-xam ci côté boobu kon ñooñu xam nañ lu ñu war a def mais xale yi nga xam ne xamaguñu dara man ñooñu laa teg bët. yee ma ñeew ma ki sottilee man ki xamagul fu mu jëm yee kooku laa ñee kooku laa bàyyi xel di ñaan yàlla suñu borom orienté ko teg ko si condition yoo xamante moo gën a baax que ñëpp ko fu ñu nekk. te loolu pour ñu def ko il faut ñuy sensibiliser di wax nit ñi li nga xam ne mooy dëgg. mais dangay gis ay mag ñoo xamante ne wala nga gis loo xamante ne tey day am sport làmb waroon a weesu fii jeunes yëpp waroon nañ ci gën a gis seen bopp mais lu tax. vision bi ak nëbbante bi ak intérêt bi ci nekk bi nga xamante ne dañ koy jël def ko code bàyyi ko ci suuf comprend nga nit mënoo lekk lekkaale wërsëgu doomu aadama. alors combat bi xam nañ vision bi xam nañ yéene Siteu xam nañ fi mu bëgg a ñor di mën naa wax Sénégal alors sita combat bi psychologiquement est-ce que pare nga ko. mentalement est-ce pare nga ko parce que yaa ngi wax projet yi yaa ngi wax li euh, nga li nga yéene Sénégalais yi mais adversaire bi nga xamante ne yaa ngi dajeek moom est-ce que étudier nga ko est-ce que xam nga kan la est-ce que waajal nga ko temps bi nga fiy def préparation yi ndax day continuer. non non nooy waajalee loolu yëpp. ok day continuer ndax man instant bi comme démb laa ñëw. booba léegi defuma dara maa ngi am ay interview ak yenn émission yi pour juste pour wax leen si li ñuy yëngatu pour juste pour lancer suñu message pour yéen ni ngeen ñuy ni ngeen ñëwee pour di ñuy jël ñun tamit yéen ngeen jàppale ñu ndax ñun ak yéen ay partenaire nañ yaa ngi dégg ñun suñu soxlaa yéen la ñu woo ñun suñu message pour nit ñi dégg ko si yéen la ñu jaar kon respect si ñun diggante ñu ñaar mais li am solo rek mooy man ñooñu. dañoo tuuti pour man yee ñi ma ñi ma war a ñi ma war a xeexal bay am pression non du ñii yow sama bët fu sori laa ko teg mais sa waay boo xamante ne du yow sax mais Sénégal la drapeau Sénégal la waaw drapeau Sénégal lay sol kon waxuma la sama jom bi ma am rek ak sama sañ bi nekk si man kon bu ma ci boole loo xamante ne sama monument la yow bro loolu nekkul lu ndaw non waxuma la rek mais dama la a xamal benn affaire man du ñii ñoo tere nelaw man instant bi si la gën a focus su ma xëyee ñaata mouse laa war a daw bu ma xëyee nan laa war a jàngee li pratique ko ba ma xam-xam li gën a yokk si man ndax si loolaa toll mais du ñi ma war a xeexal ndax ñooñu ëpp ñu ma dara lépp lu ñu am am naa leneen kon gëm-gëm boobu il faut muy nekk si doomu aadama te wallaahi lii du yàgg dama ko gëm waxuma ko ngir dara si yàlla rek laay ñaan yàgg yow bro mbëri seen biceps yi ngande yi nañ ñëw exploité ko booy xeexal suñu maam yi comprendre nga yow nañ defar seen cardio yi rek xam lu ma la nañ defar seen cardio yi toj seen biir yi xam lu ma ñëw dugg si affaire bi yow wallahi kon Sénégal dinañ am beneen vision dinañ gën a respecté mbër ndax dina leen indil monument boo xamante ne yow macha allah yee nañ def loolu. waxuma sax pour man mais man li ma gis mooy pour ñeneen. jee ndax jeunes yi nekk ci làmb dafa bari te yow koo ci laaj mun la bàyyi naa jàng koo ci laaj mun la métier bi bàyyi naa te ñoo ñëpp dañu war a dem jàng métier dañoo war a dem jàng école te loolu yëpp defuñu ko bu a focus si làmb boo xamante ne yow léegi boo tollee ni nga war a toll te yow jariñoo si looy def boo amul xel tuut dangay dugg si loo war a dugg alors mbokk yi ni ngeen ko gisee niveau bi yokku na déjà li muy wax ci wàllum euh, entraînement cardio beeg euh, euh, voilà abdominaux et tout xam nga voilà niveau gi muy waxee moom moo kawe moo lay won nii voyage am na solo mbokk yi ah voyage am na solo mais aussi euh, voilà xam-xam lu ama am solo la aussi ah ñu ko ciy gën a féliciter également li muy wax am na solo hmm, parce que làmb dafa yaatu euh, di nga gis ay champion yoo xamante ne comme ni nga ko waxee bëréew ñu d'autant plus nga xamante ne amaguñu tour xamaguñu leen ñu nekk champion te xam ñu muscle déjà boo xasee ba am doole pour garder loolu au niveau dafa metti hmm, dafa metti voilà lan ngay tàggatoo ci événement bi nga xamante ne si la ñu jëm. waaw man li may tàggatoo mooy li may njëkk def rek mooy le huit bi nga xam ne moom la ñuy def la suñu open press bi. yow na si ñëpp gën a jàpp xam ne ñoom ñoo xewle du man seen bis la ñoom yaa ngi dégg yeneen doomu réew ñoo may xool mais seen bis la xam ne ñoo ko moom jox naa leen lépp beneen bi may wax mooy léegi si xam naa dina ñëw dina dina leen expliquer dina leen gën a xamal détail yeeg perpervie bi yeeg amal ma la ak lépp su lu ñu lépp lu ñuy yëngatu mais dama la bëgg a xamal benn affaire ne ñun yàlla may nañu sañ-sañ bi yàlla may nañu mën-mën bi yàlla ubbil nañu bunt si ñun lay des ñu am gëm-gëm bi yow di ñaan si yàlla suñu borom jàlla lañu. maa ngi ci woo autorité yëpp maa ngi ci woo ki nga xamante ne mooy ministre Matar Ba maa ngi ci woo bépp autorité boo xamante ne yaa ngi ci réew mi te Sénégal ñor la doomu réew mi ñor la yow maa ngi lay woo lépp loo mën nga def ko lépp loo ñu mën a jàppale nga jàppale ñu ko ndax bis bi dafa nekk bis boo xam ne bisu Sénégal la du bisu Siteu du bisu Mademba du bisu Mapaté bu keneen doon tax sol drapeau réew mi di dem ñun ñëpp noonu la ñuy toppee suñu kii seen ginnaaw kon maa leen di jox di dajee la wit sama open press bi may def di leen invité pour ñëpp ñëw jaajëf. voilà mbokk yi euh, dégg ngeen li nga xamante ne Siteu wax na ko hmm, yaatal na ko fi yaakaar naa tey xam-xam gën na feeñ hmm, aussi professionalisme gën a feeñ. également li nga xamante ne moom mooy maturité ki nga xamante ne moom mooy euh, Siteu gën na feeñ loolu lay woon ni voyager am na solo mais aussi encadrement bu ama am solo wër la aussi loo ama am solo la ci biir rool la ñuy remercier staff bi nga xamante ne euh, wër nañ ko staff bi nga xamante ne ñoo koy coacher su ma nee legacy wax magam Ibrahima euh, ñoom rek doy na di wax ñi nga xamante di remercier aussi ñi nga xamante ne fekk nañ leen fi di remercier équipe technique bi nga xamante ne moom laa àndal El Hadj ak Seyni Chérif Touré <laughs> merci beaucoup peace